asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen nuyu du leen ziar euh, ñëw fii ànd ak site bii di eko Ecoboss TV nga xam ni moom bu yoonu murit xew la rek day jël matériel yëpp yóbbu Touba. ñu ñëw fii tey euh, di fi dalal suñu xarit suñu jëwriñ Serigne Midadi ñu ngi ko fekk fii ci xaay gi kër Serigne Saliou Mbacké bëgg mu waxtaan ñu bis bi ak xaside ak sëriñ Touba seen Midadi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci Ecoboss TV. barkallah bismillah rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayiduna muhammadin makin muhammadin abdallah ama baax da gannaaw bi ñu sante mbaa boog ci biir sant gi ñuy sant suñu borom subhanahu wa taala ci alhamdulilahi rabbil alamin tey julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sallallahu ala muhammad tey gën a jërëjëfatil a cheikhna wa wasilatna ila rabbina cheikhna cheikh Muhammad xaadima rasul ci jërëjëfati borom Tuubaa ñoo leen di nuyu di leen siyaar baax te di leen ndokkale ci bés bi day mel ni yelloon na ñëpp rek waroon a jug jéem a lañ bët lu waral bés bi mbaa boog lan lañ moo doolee ko ci bés bi te ñaar yooyu rek la lan moo waral bés bi ak naka lañ moo doolee ko ci bés bi li waral bés bi ne xam naa bu ñu ko bëggoon a xam dañuy demaat ci Cheikh Moudou Mountakha moom Cheikh Moudou Bachir moom mi ñu dee téeméer juróom-ñeent fukki at juróom yëpp xamuñu dara ci li waral ci bés waaye moom mi nga xam ne fukk lu nag suñu borom sontala déggante nag borom Touba Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wasallam ba ne ko defal ma lii kon moom xam na leen ci bés bi waaye ñun liñ ci mën a doolee ko la ñuy waxaat man damaa jàpp ne mboolem lu sama borom mës a wax te loola dara ju tegeeku ku dem ci alxuraan ak leneen lu nekkul ci alxuraan alxuraan moom du tegeeku mukk jamono ju nekk day existé jamono ju nekk day existé waaye suñu borom moom mooy moo waxoon ne yéen mbindeef yi mbaa yéen ni ñi julli leen te sëlman ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne man nag man yàlla bu ngeen ñëwee di ngeen fekk ma koy def kon day mel ni kon ñun dañoo xat kon jëmmi yàlla ji ci bisam boobee mbaa boog ci melokaanam woowee mbaa ci appam yooye mbaa ci bisam yi mbaa ci waxtoom yooyee ci bis bi te jëfal ko borom Tuubaa Xaadimu moo tax borom Tuubaa c'est la solution borom Tuubaa dafa waxoon ne ca di a ci sama samadiya mu ne bu ñu tabaxee jumaa ji ba fu waay tol di seen sorol bi da ngeen fa gis yett tegete ca yett tegete ca yett mu ne yettee lu ko fukkeel mooy dañ may gëm ba nopp tubaab bi mu ne bu ko defee jaaxle daj réew mi kàpp te kenn du xam lu koy dindi waaye ku dul am murit mucc nga ci loolu murit dëkk ci mucc barke Mamadou Moussa dégg nga loolu te ñëpp a jaaxle àdduna ak laaxira ñëpp a ndax ñii ñu ngi gus-gusi ñuy ñaanal ndax kenn dalal ko dem ci barabu ñaanukaay kon waa Barzakhoul Mahmoudi am nañ jàq am nañ jafe-jafe ñii ci àdduna waroon ñaan te borom Tuubaa nee na ci ci Masaalikul Jinaan ñaan dana jëriñ kuy dund jëriñ ku faatu dégg nga loolu gars yi ñëpp ba doxlu ne cell ne dootuñu ñaanal kenn daa amatuñu barabu ñaanukaay ndax tëj nañ seen i jumaa tëj nañ seen i jàkka du du neex kat data fang lay doon data béy lay doon ku bëgg déglu ku bëggul mooy loolu dégg ku baax xam gi mu xam nag ci dëggal kàddu suñu borom mu ne inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuha lazina amanu sallu alayhi ñëpp ak jekk ci moom des murit yi cheikh mun dum taxaa ne ne nañ teewlu suñu borom nañ teewlu borom tuba ñu jàng alxuraan jàng xasaayit njukkalee ko borom tuba xanaa xamoo ci lu lu bëri ci lii lay dañee borom tuba dafa waxoon ne addurru wa nafi min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani lor ak njëriñ njëriñ ak lor nekkul ci ku weex nekkul ci ku ñuul ci suñu borom subhanahu wa taala nekk koy dégg woo wooteem bu tedd bii at na ni mu yëngoo ñëpp tiit ñëpp di ngaf ngafi jigéen ñi góor ñi daje mag ñi ndaw ñi ñi tawatoon sax ñëw ñu wér waxumaa ndoppi te kenn du ci jële jàngoro dégg nga loolu delloo buum ca booy booy gën mooy delloowaat buum ca te sànq rek am na ko toogoon fi di wax bi mu naan xaaram yi daal yi xaara fu aat yi xamante yaadi li bu dalaay fa fa ahu yi naka la koy sante ndax samay ndax samay daa jeex na amatuma daa deret laa dese dégg nga ko samay xalima jeex na amatumay xalima naka laa koy sante moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye bu dikkaatoon te dina xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha gàcceel na waxam jooju dimbali na ko ci baax a baax a baax dégg loolu la ca des mooy nii mu mel njaboot gi dafa am lu Cheikh Mouhamadou Mountakha di jàngale te ñu ko war a dégg mooy dañoo war a gëm war a wóolu war a yaakaar suñu borom subhanahu wa taala dégg ko baax dégg ko baax te loolu ku dul borom Touba faggulul ko aw ñoñom borom Touba rek moo ko faggul aw ñoñom li war moo ñu am gor ñu am jom te am fulla te am diine diine gi moom naka jekk moom ku judd juddwaale ko ku judd rek juddwaale nga diine waaye la am solo nag mooy fexe ba ne ka teewu borom tuba ne ko ñàkk tub ne ko taraw liis xanaa xamoo ni gars yi ñàkk mooy borom tuba ñun moom la ñu am kon dañoo war a ragal borom tuba nee na fa laysa yujibu sawadul jismi safaatal fatawu su al fahmi cheikh abdoul ahad san waaja ne faa murid nekk na nga mel ni gaynde si bi ndax moom day wéet ko du ko tee xeex foofu la murid war a nekk borom tuba la joxañ boppam taxu koo jug ñoo ko tax a nañ am am gor ñi war a jàng ndax fii àdduna toll bu leen bu leen bu leen fàtte ne gis nga mbir mi bu weesoo xam nga def nañ seen pexe ba yàgg kenn amul lenn loo ñu mën a rapproché dañuy defaat yeneen dëgg sërëx mooy gone yi war a jàng ñu fexe ba nasaxal seenu njàng ba duñu xam dara nekk ay analphabète dégg nga loolu jigéen ñi war a sëy fexe ba duñ sëy di caaxaan sàggane seen i murid sadix ndax danañ leen tuur alal danañ leen war ay matériel yu dëgg xeex baa ngi ñëw de tàmbaleegul de bu ko defee ku ci nekk bu demee war na am ak jom ak xam ne li mu yor patrimoine borom Touba la ñun dañu am patrimoine patrimoine boobu dañu ko war a sàmm nag li njëkk mooy sunu melokaan fu ñu mën a nekk nañ xam ne ay murit lañ ñaareel ba mooy sunu jëm ak sunu ruu yoruñu ko borom Touba moo ko yor ku mu ci neexoon tey jii mu faatu bu bu Cheikh Moudou Mountakha mii bu demoon nañ ci buntu jumaa ji faatu yaakaar naa kenn du des am déet am déet waaye bëggul ñuy daje di faatu dafa bëgg la sama borom sontal la bëggoon ci jaamam ñu mottali ko loolu te malaaka yi ñoo waxoon ne ñii boo leen fi wàccee dañuy mooy dañuy bàkkaar te nga ñu fa wàccee ñu jaamu la sa borom le naa lu ngeen xamul bind naa doomu aadama def ci moom mbooleem mi xeetu xam kon ana xam-xam bi ci ñun yëf yi ay taxawaalu du ñëw lekk dem rek da war a jàngat bu baax a baax ay julit lañ kuy ndamoo ak julit boo génn fii gisul la gàcceel naar yaa ngi nii ay julit de waaye am na ci ñooñ sax bu demee du suñu na ci ñoo xam ne dañuy dëkkee mooy kon julit matu te tiita fexe ba doon ay murit waaye mu doon murit amourid sarif nag moom fu mu yend borom Tuubaa moo ko fa yendal fu mu fanaan moo ko fa fanaanal du jew du xaste du mbuy fa fore kenn maa ko band ba rek dégg nga ko borom Tuubaa nee na bu ngeen demee ba seen tabax bi la gis ku jur lu tan lekk tu am lu mu dundee mooy ñi nga xam ne jur seen i doom booyal leen ñu dem ba nekk ay cadre ñu jàpp ne moo leen yilif bu leen tey julli sax ñu tër leen julli te loola feeñ na ñii fi ñii nga xam ne ñii nga xam ne ñoo fi nekk ñu tër leen julli seen i doom yi doomaat rek ñoo leen tere julli am déet waaye amuñu jom amuñu ngor dañoo moomul diine ji di am déet diine jàng ca borom mooy kii fo am murit nekk kenn mu laa tey julli te nag ca baawoon dañoo waxoon ne murit duñu julli de dañoo waxoon ne ay jaahil lañ de dañoo jànguñu de jànguñu alxuraan de xamuñu dara de teguñu woon fenn waaye tey jattu nañ lool lool lool lool moom ni data bay nee na faa nga di lii ñu am ku ko ku ko ñeme te lépp day delluwaat suñu borom subhanahu wa taala moo tax gone yi daje nañu xam ne combat baa ngi doog a wàcc seen bopp yi nañ ci def ndox xam na dañoo war waroon ay cadre doon ay imam ba ci nguur gi teg ko seen loxo ñu jaamoo ko yàlla liggéeyal ko borom Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye ay taxawal du ko maye ñi war a nañ jàngi jigéen ñi war a sëyi nañ sëyi soxna ñu war a téye seen i njaboot yaral na nan yar ndax addunay doo tax tëddi du dara lekk géeg naan gi du tus borom Tuubaa nee na di nga gis ku sol yére yi yiiw génne ci kër gu yiiw nuru ku yiiw te di yéefar ndax dégg nga te day mel ni sax suñu borom ci pédagogie ci xam-xamam bu rëy ba ndax moom xam xam-xamal woon kenn dafa wax ne dafa wax ne yawma laa yanfau maalu wala banun illa man ataha allah bi xalbi salimin xamoon na ne gars yi danañu amee doom xamoon na ne gars yi danañu amee alal tey gars yi ay milliards la ñoo seen i poche boo dajee mën nañu amee ay junni waaye loolu ndax na ndax sell na te am na alal yooyu ko lekk doo mën a jaamu yàlla nañu sellaat suñu jëmm bu baax a baax amaan ngor ci suñu te ak borom Tuubaa gëm la Cheikh Abdoulaye waxoon ne gëm ragal ak wóolu dee su ko def kenn ku dul borom Tuubaa waaye ku ko def ku dul borom Tuubaa des na keef tàddoome ndeyam fii des na keef tàddoome ndeyam fañ jëm dégg nga loolu dégg nga loolu loolooy jom gëm ragal yaakaar borom Tuubaa def te lii firnde la ci maa ngi ñaan murid yëpp nañ ko yóbbaale fu ñu mën ne di ñaanal Cheikh Ahmadou Mountakha mii di amirul muminin mu gën fi yàgg tànd ak wér waaye nag li ëpp solo ko bàyyi xel na nañu xam ne ñun ñii ñëpp bu dee xale bu jigéen ku la jox xaalis gu bëri bëgg laa convaincre dalaa bëgg a yàq képp ndax ne am na la sa digg te borom Tuubaa ko moom bu dee xale yu góor yi ku ci jox ay millions bëgg nga bëgg laa détourné dañ laa bëgg nax la na ci sa digg moo ëpp loola tubaab ya lay seen yitte mooy ànd ak murid yi te borom tubaab moo ne woon koo xam ne bu ne woon yàlla wàccel sa uru ay ni ñu jàndoo samay murid mu def ko waaye yow da nga gis uru ay ni di sàgg di sàgg sa bopp ci ñii nañu suñu bopp te joxaat ko borom tubaab nañu téye suñu suñu ngor te joxaat ko borom tubaab nañu téye suñu diine te gën koo sàmm lu waaye mën a jàng ci téere xam-xam borom tuwaay na ko def ndax xeex baa ngi ñëw da ngay gis ku ñàkk fay rek ku doye li di la jéem loo xam ne jànq jànq ja nga xam ne ñu ngi doog a dugg ci islam sax mën nañ koo kon nañ laa bëgg a fakkatal nañuy murite alal ji fi nekk ci yëre yi ay yëre la ay xob la nañ ko sol tante ko borom tuba njàng mi ne ko jàng ngir gàcceel malaaka ya suñu diggante suñu bopp bu ñu jàppal kenn dara ngir gàcceel iblis ndax dégg nga loolu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi gën a waaw bi daal di lu la bàyyee noonu ñun fokk nga barkeelu si xasida waaw xasida ak bis bi bisu tey bi ak xasida waaw man loolu bëgg nga yaatal. waaw bésu tey bi moom bésu tey bi moom mooy li ma waxoon sànq ndax xam nga ne àdduna sépp dañuy ñëw national et international ñëpp a ngi ñaf nga fi di ñëw ok bisimilah da ngeen def nga noonu wax na si Mouhamed fii seen loo xam ne nii ah oui est-ce que waaw wér na waaw aji bisimilah jërë ngeen jëf santaat nañ santaat nañ si Ahmad Bamba bu baax a baax xaadimu rasuul jëmm ji nag li mu wax rek laay dëggal ndax sëñ Tuubaa wax ni adxaltu nafsi wa jëmmi ahli fii jaybi afdalil warasil fadli kon murid yi ñoom du tàggu Seydina Mohamed Serigne Touba du tàggu Seydina Mohamed gis nga lu waay mën a am ak lu waay mën a xam ak lu waay mën a jàpp du daara sëñ bambay lépp sëñ bambay waaja moo waajal waaja kenn du ahmadu ahmadu bamba kenn la jërëjëfe borom tuuba sëñ tuuba rek la nee na biraasu man baarazani biraasu yu bar xanaa xamuloon sëñ muntaxa day am lu muy jàngale rek sëñ muntaxa mi toj na adduna bi toj na adduna bi li ñëpp ragal ñi tudde seen bopp ay jullit tudde seen bopp sëti yonent bi nekk màkk ñemewuñ ko sëtub sëriñ Touba di xalifab sëñ Touba di xalifatulaa fil ardi yëlif ñëpp wal leen ne leen la lii rekk la mani ko ku ñaan ñàkk boo jëndee yaa moom sëñ Bambay waaja sëñ Bambay waaja sëñ Bambay waaja moo waaja kenn doo Ahmadou Ahmadou Bamba kenn la jërëjëfe borom tubaa lii ma yor Serigne Saliou Mbacké ma ma ko jox Tuhfatul Mutadarrihin la bi mu doonee Serigne Touba la ma ko jox ni ma doo ko jàng di ci ñaan di ci ñaanal ñëpp bisu tey nag yàlla dogal na bi sëñ Muntaxa waxee liggéey bi ni nañ ko def jàng naa ci jëy sun def ko adde ku yàlla bind waaye kër sëñ waa kër sëñ Touba rek laa ko jox fii ma toog jàng naa ci téeméer ak juróom fukk def ko adde yëpp def ko addee taalibe yëpp am na nag loo xam ni dafa fay nekk waa xaaral xaaral murit am na loo xam ni dafa fay nekk moo bu ko neexale taalibe yi ngir jëmmi Serigne saaliwu ndax man Serigne Saliou toxfatu rek la ma dénk jox sama saak bi ay toxfatu rek a ci nekk lu waaye am nag nag ay xasida la yu Serigne Saliou gërëm ndax moom rek laa koy jàngale jàngal naa ko toxfatu ba mbir feeñu ma ni ma jàngal Serigne Saliou Jeyson suñu tax fadu ma jàng tey fun te Jeyson bi bisu Kazu raja ci ci màggalu Serigne Fallou laa ko tëj barabu Serigne Saliou bi ma ko jàngee ba noppi am na lu génn ca barab am lu ma jox ni ma boo jàngatee toofatu ba noppi na nga ko yokkee lii daa dangu leen bijaahi jibril astajib suali wa balli xani mablaxa rijali bijaahi mikail abli nahama wa nafiya jël mil haysil karama bi jaahi israfila ab li isma wal takfini ahwala yom bi jaahi asraila kulli yaa jamil toola yaati wa kasabada wajhal tawassuli liman yatuhu bihi sahadata daarina wal yajid wallasi daani li nazmi bil amni wa ridwan wa bi saadatin wa bil imaya an jumlati aswahi wal inaya wa bi najati min suali wa azab wa sakarati lmawti rabbi wal isab wa bi busarati wa bi sururi indamamatina wa fi nusuri wa salliyan wa salliman ala nabi wa alihi ma ashabi nujubi واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة صحابي أسميا واغفر لكل شيء تعلق بها وأخخا سعادتي يا ربي والطف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا والطف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا والطف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به آجة كل مسلم بركب سيخ الخديم mbootum xaside yi yërmande Cheikh Saliou Mbacké barkeb Serigne Saliou